wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sëñ bi mu ne alhamdulilah salaamu salaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi nuyu mbooloo mi di leen ziare di leen gërëm mu ne ñu ngi nuyu mbooloo mi di lañuy ziare di lañuy gërëm di leen ñaanal yàlla ci teewaay buñ teew fii teew bu ko jiitu woon ci dimanche bee passé ñiy fàttaliku jul juddug yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sëriñ bi mu ne mi ngi sant yàlla beneen yoon di jullu ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne di fàttaliku tey gërëm nit ñi nga xam ne ñëw nañ gàmmu si ñi nga xam ne teewoon nañ ci gàmmu gu mag gi ak gàmmuwaat gi yëpp mu ne am na ñoo xam ne amoon nañ gàllankoor waaye ñëw nañ ci gàmmuwaat gi mu ne képp koo xam ne yaa ngi ñuy dégg walla yaa ngi ñuy seetaan ñu ngi lay ci ñaanal yàlla di jottaliku ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne lii yëpp moom moo ko waral moom yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mawlaana cheikh ibrahima radiallahu anhu bi mu ñu bëggee noppal daf ñee booleeg yàlla ndax arab dafa wax ne ku la xiir ci leneen lu dul yàlla wuruj na la ku la xiir ci boppam sonal na la ku la xiir ci yàlla nopp alhamdulilah bi nga xamee ne toppam baay mii moom yàlla rek kese moo ci nekk ci la lay jëmale ndax baay ni feese woon gox yépp ak àddina bi yépp kum xiiroon ci sa bopp nga gëlëm waaye alhamdulilah bi nga xamee ne kim ñu xiir moo njëkk te moo fi nekk te moo mujj te moo feeñ kooku noppal nañu Mawlana Cheikh Ibrahima bañoon na ba wax ne soo jaayanteeg moom sukk ci ay tànkam bala ngaa tàggoog moom su ne la Ibrahima nga ne Ibrahima amut ku am yàlla rekk moo am kon yàlla moo njëkk moo mujj ñëw ngeen ci dëkk Mawlana Cheikh Ibrahima yi uy si yàlla yàlla ngeen dellu seen bagaan fees dell nag kenn ku nekk fa nga jëm soo fa àggee yàlla nga gis sa bopp ci say bokk ci say alal ci seen njaboot na dooleeku nga fii nga ñëwoon ba nga ñibbi ci pays Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mu ne loolu doy na yóbbal mu ne ñi ngi gërëm teewaay bi ngeen teew yéen ñëpp fu ngeen mën a jóge ci àdduna bi mu ne jëf ci yàlla amul lu ci tuuti de rawatina nag lu bëri ci yàlla amul pertement ku ñëw rek da nga jëriñu mbooloo mi dajee fanaan fii di tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam yàlla ci la wax ne laajal lu la neex ma jox la moo wax ne su taxutoon ak yaw duma ma bind mu ne su taxutoon ak moom du bind nit du bind jinne du bind kenn ñu ngi jottaliku ci suñuy wasila Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu di ko wax baay njaboot gaa ngi nii soppe yaa ngi nii bàyyi nañ seen lépp ci jamono ju xat dara waralu ko lu may yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi xoolal bët yii ci bëtam ngërmande xool leen bëti yermande dolle leen bañ dolleeku yal nañu yàlla fayal bàyyi yal nañu yàlla fayal mboolem saxaabaay bàyyi mu ne ñu ngi gërëm mboolem xulufaay bàyyi di ci jiital baayam maam alaaji abdullahi radiyallahu anhu mu nga xam ne moom moomu bàyyi mu ne mu ne benn melokaan la ci melokaani yàlla yi moom maam alaaji abdullahi radiyallahu anhu baay moo ñu waxoon ne beneen yoon da ngeen gis kenn kéemtaan yëf yaa ngi dox ñi ngi sant yàlla di jàpp ci liñ nekk kenn du am urus di ko wecceek weñ gu ñuul yàlla nañu yàlla gërëmal muqaddami baay yi ak xulafaay baay yi fuñ mën di nekk ci àdduna bi ñiy dund ak ñi dee ñépp nag ñu ngi leen di seedeel loolu ci bisab yonentu yàlla Muhammad fii ci Medina Baye bi nga xam fa la yàlla tuddee yonentu yàlla Muhammad di Moustapha sallallahu alayhi wa ñu ngi gërëm ay xulafaa yi dalay ko ci baabul xadarati cheikh Seydi Aliou ak magam alxaaji Abdoulaye radiallahu anhu ak seen mag xalifa Cheikh Ahmad ak suñ ak magam Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhuma mu ne ñu ngi doon leen njukkal xaadimul umma Cheikh Mouhamadul Mahi lii yépp moom la formé jotaay bi daf ko melokaan bii mu ne melutoon ni daaw de tabbaay waxoon ne wa matan uxra taraw naa ajaban yëf yaa ngi mu ne ñu ngi dégg way yoo xam ne ay wax ñi ñaa ngi tabax àdduna ñoom ñoom ñu wax ne ñu lañ far mbaar mii fii la yónent yàlla ma sallallahu dëkkoon ci la ay saxaabaam dëkk ci la ay xolof dëkk ci mbaar mii ay jox nañu ci dars tabaxal yàlla bu em tabaxal boom nekk bànqu suuf si mu dëkk ci xam ne dara yóbbu ko ci lenn yal na yàlla may xalifa bi may ko jàmm yi semb yi xam ne semb ko waaye yal yàlla may wér Cheikh Mouhamadul Amin mi seen ndigal rek fi toogee ñun bëgguñ dara lu mooy taalibe gu dëggu taalibe gi mbooleem njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim moo leen xaadim la moom ootewul dara laajut dara kanaa doyloo li nga xam ne moo la Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu waxoon bañ nekkee Qahira Jamal Abdou Nasir indi ko ay keesi xaalis fekk ji Mamar Gueye ma nga fa moo doon ambassadeur bi mu ñëw ci moom ak Sëriñ Mahmoud ak Imam Hassan mun naa bàyyi yoon dama bëgg yéen ngeen wax ko lii danaa ci jël dara dafa leen projet boo xam ne ku sant ñes dana ci tedd mu ne ngeen wax ko ñu wax ko ko mu noppi ba ci kanam mu ne walaay jim Mamar Gueye wax na ma loolu mu ne dafa taamu yaxantu boo xam ne mos naa ko jig na ma te duma ko ba mukk mu ne yaxantu boobu loo am jox yàlla lum ñàkk laaj ko yàlla mu ne mosu koo laaj dara mu tardeel ko commerce baax na waaye lii daal jig na ma mu ne lii jig na ma bàyyi naa ko amul fenn yéen ñépp nag seen àndoo bi ngeen ñëw fii ci pay bi seen ànd suñu àndoo bi nga xam ne moom lañ dajee fii ñëw di ko déglu ci gàmmu gi li ñuy wax baay mi ngi koy dégg ay xulafaawam ñu ngi koy dégg Cheikh Ahmad mi ngi koy dégg yonent bi sallallahu alayhi wa xam ne moom moom jotaay bii mi ngi koy dégg suñu tudd ay tur di ci bànneexu di wax jullit la taalibe tijaan la taalibe baay la loolu yëpp dañ ci bànneexu rek waaye suñ ne taalibe baay la mboolem taalibe yi dugg nañ ci biir taalibe gi yàlla nañu yàlla may ngër màndeel bàyyi liñ topp nii ñun yàlla buñ ko bàyyi ñu ngi ñaanal suñ mag Seyda Roqiya bint Cheikh Ibrahim bintu Cheikh Ibrahim Niass mu nga xam ne mooy fataatul fayda wala fataatul xay mu ne ñu ngi ñaanal imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé gannaaw gi nga xam ne ñaanal nañ xalifa bi ñaanal ñaanal Seyda Roqiya ñaanal Baba Lamine ñaanal mboolem ñi nga xam ne seen yaram dafa sutaate mu ne ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne jiitu nañ kaamil bi ñu jàng éene nañ ko ci di ko def ci ruuxu Cheikh Mouhamadul Axibu ak papa Mahmoud ak yaa roqi jaw ak njabooti baay ak yaa asuli ak soxna asuli ak képp koo xam ne jiitu na rek te topp ci baay tey yaakaar ko ñoom ñépp ñi nga xam ne jiitu nañ yal na leer tàbbi ci ñoom ñi fi des tamit yal na leen yàlla may wér may leen kàttan may leen ngër mandeem may ñu nag bëgg Cheikh Ibrahima goo xam ne du dagg mukk nag suñ ko bëggee yàlla bëgguñu yàlla wax na loolu ci alquran ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni yaxbikumullah su ngeen bëggee yàlla wax leen topp waxul topp leen yàlla de daf ne topp leen yonent bi sallallahu alayhi wa mbëggee li yàlla tàbbi ci yéen yal na mbëggeel yàlla tàbbi ci ñun salaamaaleykum wa rahmatullah mu ne ñu ngi ñaanal suñu mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci yoon wi doon ñëw ñi nga xam ne dañ doon ñëw ñi eh, nga xam bandi yi jàpp ci yoon wi di leen def otage di leen laaj xaalis lii duwut première fois ñu koy def mos nañ koo def ci jamonoy Seydi Ali Cissé sëti Seydi Ali Cissé ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadul Aqibu di doomi soxna Nafi Cissé ak ak Lawal Malami ak ak Lawal Baraaw ak Fatimata Zahra mos nañ koo jàpp laaj ci xaalis bu bëree bëree bëri taalibe yëpp participé ñu jox leen ko mu ne yàlla na seen ay am ci seen kaw yàlla na yàlla musal suñ mbokk yi te delloo leen ci jàmm ci barke mbooloo mi ci barke bis bi ci barke alquran ji nga xam ne moom la ñuy tëjee gàmmu gi ci barke burdu bi nga xam ne pare nañ ko léegi yàlla na leen yàlla dimbale dafa leen faraj ñu dellu si jàmm seen kër yi